li waral ndaje mi tey dañoo am suñu naqar ak suñu tiis amuñu fenn fuñ ko jooyee ndax bu ñu mënoon a jot ci président de la république son excellence Macky Sall te dinañ ko wax naqar gi nga xam ne moom lañ nekkee ci département de Mbour bi rawatina commune de Mbour mais président comme pour nga gis ko dangay am foo jaar kon yaakaar naa ne amuñu fenn fuñ ko jooyee ci seen média yi rek lañ ko mën a jooyee pour son excellence mën a dégg suñu naqar gi nga xam ne ñu ngi koy dund suñu xol depuis mun mu nommé suñu responsable nekk ci département de Mbour yëpp rawatina nag su ma nee responsable am na responsable yoo xamante ni mun nañoo jàppale jeunesse bi ñu liggéey am na responsable yoo xam ne tey mun nañoo financer jeunesse bi ñu liggéey am na ñoo xam ne seen doole eggul foofu waaye ñi nga xamante ni tey seen doole egg na pour ñu jàppale ndaw yi pour ñu liggéey pour ñu wutal leen fu ñu leen dugal pour ñu liggéey rawatina nag madam madame Sibi man madame bi mun naa ne télé laa koy gis wala may dégg turam

joxe sen cinquante mille dem sen yoon loolu taxul président de la république nommé len kon damay interpeller madame Sibi nako ñun wa commune de Mbour nomination bi la son excellence Macky Sall jox gisuñu ci sunu bop te jigen la ñun ñi jigen ñu waron ci gis sunu bopp waxuma la sax pour woutal ndaw yi liggéey mais financement yi son excellence di joxe mun na ne commune de Mbour rawati na ñun jeunesse bi les jeunes filles yu bok ci majorité présidentielle gisuñu sunu bop ci financement yi son excellence di joxe kon dama né Mamadou Dione COSEC moom tamit ñu ngi koy interpeller di leen wax ne lii ñu leen di laaj lu ñu moom la ñun ñoo ko moom parce que soo déggee ma ne ñun ñoo ko moom ba muy metti ñun ñoo nekkoon sur le terrain doon liggéey ñun ñi nga xam ne nag rawatina ay jigéen lañu dañoo bàyyi seeni borom kër ñëw di campagne di ànd ak ñoom di dugg fu nekk am na ñoo xam ne tey seen sëy yëngu na ci campagne élection présidentielle yi ñu nekk am na ñoo xamante ni dañuy campagne ba ngoon jot ñu ñibbi seen kër lu ñu jëndee reer sa duñ ko am parce que bu ñu eggee ñu ne leen reer ba jeex na rawatina ñun waa commune de Mbour ndaw yi non dama ne ñun commune bi lu ñu daj ñun commune bi lu ñu daj parce que man li may wax dama koy wax ndax dama ko dund te su ma waxee tey jii waa Mbour xam nañ ne war naa wax parce que waxtu bu nekk ànd nañ ko di campagne kon dama ne maa ngi interpellé Omar Youm madame Sibi Mamadou Dione COSEC dama ne lii ñuy wax ak responsable yi nekk commune de Mbour yëpp ak ñu nekk département yëpp ak DG yi nekk commune de Mbour yëpp ma kenn dama ne li leen seen son excellence jox nañ ñu ci jox suñu wàll nañu ubbi seen téléphone yi suñ leen di woo nañ ñu jël mais depuis que son excellence gagné dootoo ci woo kenn ba jot ko non seulement waxuma sa loolu waaye organiser too dara ba woo leen ñu ñëw kon nag ba élection jeexee la ñu fay seen téléphone yi ñoom ñëpp dem tëdd ndakaaru responsable bi may wax nag mooy yi nekk commune de Mbour nañu tëjji seen téléphone yi wax ak jeunesse bi parce que jeunesse bi ñoo leen dooleel ñoo leen jàppale ba tey bu ñu nee wi excellence ñun am nañ ci part de responsabilité ñi nga xam ne ñoom la takkal ndomba tànk ñu nekk ci département de Mbour bi jàppalewu ñu jeunesse bi département de Mbour ñi ñu fal seen jabar seeni rakki jabar seeni famille ak seeni dëkkandoo ñoom rek la ñuy jël di leen fal di leen jox ndomboy tànk léegi nag désormais Omar Youm maa ngi lay interpeller madame Sibi maa ngi lay interpeller maa ngi interpeller Serigne Diop Sandiara yaa ngi dégg bàyyiwuñu kenn maa ngi interpellé président Saliou Samb maa ngi interpellé Cheikh Issa Sall maa ngi interpellé Sira Ndiaye Sira Ndiaye député la boo xamante ni commune de Mbour la dëkk kon ñun waa commune de war nañ cee gis suñu bopp ci taxawaayam nekku député boo xam ne national la commune de Mbour la dëkk kon dama ne lii ñuy woote maire Yacine Ndaw bàyyi ñu benn DG bu nekk commune de Mbour may nañ leen nag cinq jours lañ leen may fekk juróomi fan suñu woowul wallahi lazim gis nga rouge bi ma sol nii dañoo pare jaral nañu lu ne parce que il est temps ñun grève de la faim la ñuy def te grève de la faim bi buñ ko defee woowuñu ñu ñu takk brassard dox ba palais parce que président Macky Sall son excellence jaral nañu ko parce que président ñun jeunesse bi amuñu dara luñ koy réclamer cooli cooli mooy responsable yu mu fi teg ñooñu dimbaliwul